Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen jaare bu baax a baax tey nag ma taxawal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Khadim borom tawféex Serigne Khadim mii réew mi xàmme nañ ko ràññee nañ ko bu baax a baax a baax jaratul man ni ma koy présenté ah mbokk yi ki nga xamante dafa dëggu personnalité xam-xamam màcc na ba nga xamante ne réew mi nga xam ne kooku mooy Serigne Khadim ma bàyyi ko mu nuyoog askan waa Sénégal ba noppi wax moom la gën Serigne Khadim maa ngi lay nuyu di Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñëpp tamit di ñaan réew mi am jàmm di ñaanal ñëpp képp koo xamante ne rek yaa ngi ci biir réew mi bitim réew ak yëpp doon soppee sëñ xaadim sëñ xaadim mu ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal wér di la ñaanal gudd fan jërë ngeen jëf. sëñ xaadim ñu bëggoon xam kan mooy sëñ xaadim. waaw sëñ xaadim moom mooy ki nga xamante ne mooy jëmm ji nga xamante ne moom mooy ñaan katu yàlla dimbali jaamu yàlla yi. Ah, faj aajo jaamu yàlla ci lépp ci zaahir ak ci baatin ci lépp daal kooku mooy jëm sëñ xaadim borom tawfeex sëñ xaadim borom tawfeex li ma lay indil ni sax du débat bi waaye foog ñu laaj ci ñu gis ne réew mi temps yi tàng na jër jër jër ba li nga xamante ne moom mooy métti bëri na fi ki nga xamante ne moom mooy Aziz Dabala ak waal ñu fekk ko sa appartement ñu daaj ko lan nga ñu indil ci leeral lu mel noonu sëñ xaadim ah loolu wax naa ci samay yenn sorties yi xam sëñ xaadim xam ni tamit mënawul di wax di waxaat waaye li ma lay mën a xamal ci loolu képp ku laale ci mbir moomu na nga xamante ne yaa ngi ci ay jafe-jafe ndax seen xaadim dina la teg loo xamante ni lu doy waar lay doon ndax parce que réew mi dafa war a am jàmm réew mi dafa war a dañoo war a dund fair play jàmm dund ci lépp nit ñi bàyyi rey yi nit ñi bàyyi ci yenn détail ñuy dugg nañu dem liggéey dem jaamu ji yàlla xamaat lan mooy yàlla ku ci nekk sa diine fa mu nekk na ko de na ko dem gëstu ko xam lan la ngeen bàyyi raye bi bàyyi nag naka su loolu du yoon du jaaduwul. waaw est-ce que sëñ Xaadim doo wax sëriñ si nga xamante ne dañoo génn ñu ndaw yi dañuy utiliser ay garab yoo xam di ko jox doomu aadama yi lay doon xabtal bu ànd ak kaaraange loo xam ci loolu. waaw loolu li ma ci wax mooy ñi nga xamante ne dañuy dem di ñaanlu rek nañu xam fu ñuy dem ndax amaana doo gis nit ci internet rek nga ne da ngay dem ci moom pour laa ñaanlu ji wala dara ki ngay dem ci moom di ñaanlu ji war ngaa xam kii mooy kan. Mhm. loolu la am na may war ngaa xam kii mooy kan. am na jamono nag dafa loo xamante ne waxukaay yi bëri na ah yàqkat yi bëri na jafe-jafe yi bëri na lépp bëri na ba jug ku jug léegi da nga naan maa mën da ngay gis ay courtier sëriñ da nga daan nekk ci man wala nga doon ñoo xamante ne ay sëfëru sëñ xaadim nga wala sëfëru sëriñ nga da ngay ànd ak benn sëriñ tey suba nga jot nga wut say baax sëriñ laa loolu dafa war a jeex wala ngay fréquenter benn sëriñ jékki-jékki rek nga gis sëriñ bi di dawale 4-4 sëriñ bi tey yàlla di ko dimbali sa xamoo ne amaana 4-4 boobu muy dawal lii tax mu am jàpp ni liggéeyu sëriñ dafa neex yaa ngi nax sa bopp liggéeyu sëriñ neexul ci kaw nga xam ko neexul ndax guddi day jot ngay ñee di nelaw ak seen i soxna doo tala nelaw yaa ngi toog yor sa kurus yaa ngi toog yor say bagage di ñaanal ni ñu am jàmm yow fàtte na sa bopp yow sëriñ bi lépp da ngay dimbali jaamu yàlla yi pour nit ñi am jàmm kon képp ku toog naan sëriñ dafa neex wala gis sëriñ bi dëkk si étage wala dëkk sëriñ bi yor oto bu nga sol ay gaz leeram nga yaakaar ne lii dafa yomb pour mu am ko ñaan yàlla yombul nit kaa ngi nelaw ñu jëflante ngay tëdd di nelaw ma toog yor suma kurus di ñaan di la ñaanal ngay am jàmm ma bàyyi sama njaboot bàyyi sama bopp bàyyi sama lépp waaye ñaanal pour nga am jàmm kon lu ma ci am mënoo maa fay lu ma ci am na dama ko miritoo kon nit ñi nañu bàyyi di nekk si ndax su noonu di def ay piraat ay sëriñ naan ay faux marabu lañ am de di si woote dara sa fekk la ñu woote dëgg kenn am na si réew mi <laughs> sa man suñu xaadim leer na macha allah ndax sëriñ dafa am ci réew bi kuñ toog nag naan sëriñ amul wala ñaan yàlla amul wala nangam amul da ngay nax sa bopp ndax sëñ xaadim képp ku ko xam ci ni muy doxee mooy dëgg ak sellal ak jubal man ci laay doxee ñaan yàlla suñu borom képp koo xamante ni gis na ma ci internet wala gis neetaan na ma ci télé ba woo ma ba jot ma dañu waxtaan ba juboo ca la ñuy waxtaan ci kàttanu suñu borom dootuma am jàmm tànk sa aajo fa yàlla moom mooy sottal yàlla moy togal way kep ku ma ñaanal ak fonction bo boo mënti nek muy homme politique muy ku mu ci doon pour sa grade gëna yok ci carte si borom dina la jàppale ba sa grade gëna yok yokk incha allahu rabbi jërëjëf ki moy seigne khadim gis ngeen man temps yëpp aw ma jàmm maa ngi jàppante këram sëñ xaadim guddi yëpp nelawul ndaxte naqar bi nga xamantene mo mo xew ci réew moko ko tere mu ne ma dijee gas li nga xamantene waxon na la ko bala dara ni xew lolépp lay leer léegi seigne khadim ñu dugg ci mbirum set dafa tàng nag tàng na yaram bi tàng na mais dañuy dugg si mbirum seet sëñ xaadim li gis na ne képp ko musaana seetal rek gis na ko lan mooy secret waaw li sama secret mooy ah yor xam-xam bu wóor yor ko di ci dimbali nit ñi yor ko nit ku ma woo ni ma damaa bëgg a seet ma dimbali la lay dëgg ma wax la ko sëñ xaadim képp ku koy seetloo liy dëgg rek la lay wax man sëñ xaadim liy dëgg rek laa lay wax du ma la du ma gis xaalis bi ma bëgg sa xaalis ba wax la loo xamante ne amaana dara du ci dëkk ñun sëriñ si ne foofu lañ mënantee ndax parce que damay xam ni gas mii jito milliardaire la am yëpp ma toog man sama bopp gas di ma woo di ma seetloo ma ne ko nangam ak nangam parce que génneel sarax nangam génneel lii nangam am na liggéey bu nekk ci yow sa fekk dara nekkul ci gas léegi boo ko waxee yaa ngi koy tiital nga ne ko rek sarax bii dañ ko war a dem mu yëkkati xaalisam jox la nga jël xaalis boobu dem takk ko say jabar wala jënd ko say oto wala di ko toos loolu baaxul nit ñi nañu ragal yàlla si li ñuy def képp ku la seetloo bépp sëriñ boo xamante ne dañu laa woo di la seetloo lay dëgg wax ko bul xool ne kii damaa bëgg ci moom lii wala nangam lay dëgg rek wax ko ndax dëgg la yàlla bëgg sa yàlla moo ne ànd naa ki wax dëgg ànd naa ki nga xamante ne day def dëgg sa man sëñ xaadim ci loolu laay dox képp ku ma seetloo moo xam da ngaa war a déposit liggéey li ma ci gis ci sarax naa la ko wax moo xam dañ laa woo justice pour nga wuyu ci ci kàttanu suñu borom liy dëgg naa la ko wax sa am na xalaa amoo ma xamal leen nit ki mën nga koo seetal ñoom sarax sarax boo xam boo ko digalee amaana buñ ko naroon a tëj ko sax dañ koy bàyyi xanaa xamoo loolu ma wax la loolu loolu day am am na si ñoo xamante dina am benn jafe-jafe wala benn loo xam ne da ngaa war a woon pour am liggéey ñu seetal la saa ma jox dara ma digal la sarax boo xamante sa sarax la nga def ko rek sa aajo faju ah sëñ Saliou yéeme ni waaw dafay am si kaw nga xam nit ki nan nga koy jàppe ci seet si kaw nga xam nan ngay jàppee raw xaanam ba mën koo seetal si ba mu mën a gis boppam loo tax mën la seet ama am la ñaan yàlla lu ama am la ak sëriñ ñu ama am la sa man sëñ xaadim ñaan mooy sama liggéey lii laa am sama liggéey du ma ko fowee ndax ak doonate la lu ma doonoo samay maam la bokk ko yor ko yàlla dimbali ma ma gën gëstuwaat ko toog ci lu leer kon man sëñ xaadim du ma dox ci tappale du ma dox ci lu ñàkk fulla du ma dox loo xam ne dañ ma ciy yabe ba tax na sëñ xaadim tey dañoo gis ne seet bi prix bi ak bitim réew lan mooy différence bi lan moo waral différence bi sëñ xaadim nan la ay seet ak bitim réew nangam la wala seet fii nangam la man doxew ma noonu yow mi toog li ma lay fayoo ka nekk ba bitim réew loolu laa koy fayoo ah, macha ndax parce la da ma mhm. la ma lay facturé ka man noonu laay liggéeyee ndax parce que loolu mooy koo xamante ni soxla nga numéro yi numéro yaa ci kàttanu su borom ma ah, ñu borom macha allah moo ma sol yàlla suñu moo def ci man lii ba muy mën a def ba muy mën a dimbali jaamu yàlla waaye nag dama ko fekk ci kër gi tëbuma tëb sol mbubu sëriñ di naan ñaan amaana samay maam ni ñu ko daan defee ak man ni ma koy defee te bokkul bokkul waaw mooy différence bi différence bi dafa bëri ndax seeni jamono ak samay jamono bokkul ndax amaana ñoom taluñu woon a sol ay grand boubou amaana tafa taluñu woon a feeñ ci écran yi amul woon amaana taluñu woon a feeñ TikTok fañ ñoon toog nañ dara léegi nag li réeroon foofu loolu li nga xamante ni daawuñu ko wane sëñ xaadim moom lay jël di ko war askan bi pour dimbali leen ñaata nit ñoo fi nekk feebar ñaata nit ñoo tëdd si lalu hôpital yi feebar te pourtant li faj li yomb lay doon ndax suñu borom dénk na ma ko nit ki da feebar ba sonn ci kattanu si borom ma dikk ñaan si yàlla jox ma sama garab nga jug dem sa yoon kooku yàlla dama cee dimbali bu baax a baax a baax a ñaata nit ñooy nekk ci ay jafe-jafe ma dikk ñaan si yàlla suñu borom jox ma la may jox nga jug dem sa yoon ñaata nit ñooy def la ci man ñaan si yàlla suñu borom ñu diggaale ak man ma ñaan si yàlla loolu sànq ci kattan suñu borom kenn dootu leen tuddati. secret boobu maa yeeg moom. Serigne Khalid. waaw bu nit nekkoon prison nii nii nii nii. ay mbokkam ñëw ci yow. waaw est-ce que ni ngeen mën a jàppale. ah ñaan ñaan la. nit ki nekk prison. ay mbokkam ñëw ci man wax na ko. ci kattanu suñu borom dinaa ñaan yàlla suñu borom ba yàlla mi nga xamante ne mooy nangu ñaan nga génn prison boobu ndax yàlla dénk na ma secret boobu. ah waaw yow mi nga ki nga xamante ne. dafa dafa am lu mu luubal loo xam bañ war ko yóbbu ci yoon ci kàttanu suuf borom bu ñu digaalee ma ñaan yàlla doo ci yoon. yow mi yor dañ laa tooñ war laa yóbbu ci yoon incha allahu rabbi ñu digaalee nga seetaan sama vidéo fii ci kàttanu suuf borom ma dimbalee ñaan si yàlla suuf borom ba doo dem ci yoon. kon ñun secret ñuy yor ci wàllu loolu dafa bëri secret ñuy yor si aar nit ki dafa bëri secret ñuy yor si dimbali jaamu yàlla dafa bëri secret bi ñu yor ci nit ki nga xamante ne tey jii. da nga doon te yéeg ndomba bi ba nga yéeg ba nga yoraat beneen ndomba tànk bu gën a kawe yàlla dimbali nañ ci bañ yor ko kon sant nañ yàlla bu baax a baax si lu ñuy def. jërë ngeen jëf li ma gën a yéem nag ci sëñ xaadim mooy li nga xamante ne moom mooy ngóora bi sëñ xaadim mi ngi nii ki nga xamante ne lépp lu nga xam caaxal na ci côté ngóora da koy faj sëñ xaadim lan mooy secret bi waaw sëñ xaadim day ñaan yàlla si lépp képp koo xamante ne rek da ngaa feebar. feebaru tële wala feebar bu munti doon rek naa la ci ñaanal waaye sëñ xaadim day ñaan yàlla suñu borom sëñ xaadim day dimbali jaamu yàlla yi loolu laa am daal lu ma la ci wax boo amee leneen nga laaj ma ci ma wax la ci incha allah même bayre bi maa ngi dangaa rula sûrement laa mais foofu laa doon jëm ci côté bayre bi dama gis ne bayre dafa am ñaari façon sëñ xaadim dafa am bayre boo xamante day ànd ak xaptal du am kaaraange am bayre boo xamante bayre bi rek lay doon coow li naan kaw moom mooy waral nga ba ñëw ba la ci yoon xam nga gis si loolu xam nga

kon nit ki boo ko bëggee siiwal da nga koo bëgg a siiwal yëkkati ko àdduna ñëpp xam ko so dañ ni ku ñëpp tifli rek tooy da am déet dëgg la sa foo jaar xaj bu mbow la nga jaar fi xaj mbow la nga jaar fi xaj mbow sa bopp nga takk ba tax ñu lay mbow dëgg la boo jaaree fii mbooloo topp la diw diw gas gas gas gas gas gas war ne am nga tax ñu def la loolu dëgg waaye ci kaw nag da nga war a am li lay aar aar da war a da ngaa war a am lu ba nga xamante ni diw diw ko diw doo kooku diw bu ñëw da ngay diwoo rek maase mu dara du mun ci yow dara man bayre boobu laay defal bayre bi nga xamante ni bayre bu wóor la boo bëggee mbooloo bëgg a yëkkati ko bëgg ay say so soppi yu bëri macha allah même boo tegoon lu kenn bëggul di ko jaay tamit ñu ñëw jënd ko nga ma même nit ki bi man dama doon nit koo xam dama am loo xam dama ko dépassé man sëñ xaadim am loo xam dépassé naa ko xam fan yee waxoon naa fi am naa fi ay jaaro yu yéeme yu may joxe yu ànd ak bayre waaye dama la am na loo xamante ne su ma la ko joxee nga sangoo ko rek jeex na dama la koy jox nga sangoo ko amul traitement amul dara benn fan nga koy sangoo ma digal la sarax nga def ko jeex na foo bi diw diw diw sa dara du mën ci cet du ci yow dara amul lu mën ci yow dara ku la jéemal wàcc ku jéem ci yow day wàcc man sëñ xaadim damay defal loolu sëñ xaadim ci ñaari fan ngay taalee nit jëppal la si ñaar fan si lépp si yàlla si borom nit ku nekk rek naa diggaaleeg yow ñaan si yàlla yëkkat la ma yëkkat jox la nga dem sa aajo faju li mooy def xaadim amul tey amul suba amul gannaaw suba dama lay jox li lay jox ñaan si yàlla nga dem sa aajo faju ndax parce que yàlla laay déggoon yàlla laay ñaan ñaanu ma benn mbindeef yàlla rek laay ñaan boo dikkee ma jox la lay jox la demal nga dem sa aajo faju jeex na tàkk nga feebar nga nga feebar nga ñëw ma ñaan yàlla nga sa aajo faju kooku sëñ xaadim noonu lay fonctionné noonu lay dundee waaw تي مبوكي نيوكو ديغلو كي موي سيرن خاريم بروم توفيخ سيرن خاريم بروم توفيخ بروم ام ام بوغ موي سيرن خاريم واي داك لوبوم سوري بروم لا اكو گم يالا اكو وولو يالا اكو فونك يالا سيرن بروم سيرن خاريم ني يا رشار نالا شار ماج لين نكا يتي يتشون ادي سيرن خاريم ني گيس لا ني سيرن بو خامندر بو ما شاء الله سيرن بو بري سيرن بو گم سا بوب سيرن بو خان سا بوب خان فين ما جيغي بو نيبي خان فين ما جيل سيرن خاريم ñu gis na tey assemblée bi tar na tàq na député yi ministre yi coow na ne kurum tey xam loo xam ci loolu ah loo ci xam nañ ànd ak dara rek nañ ànd ak dara rek sax nag war nañoo am nañu si am na si ñoo xamante ne yow lañ ci yow am na si ñoo xamante ne dama lay xamal leen de am na si ñoo xamante ne si assemblée si député yi war nañoo tiitaat seen bopp war nañoo gëstu wutu ñaan du mën la nag diw ak diw la waaye ñooñu bu ñu gisee vidéo bi dinañ xam bëri na si am na si ñoo xamante ne jamono bu ma toll ma lay wax nii ñoo ngi toog ci kaw xottu gerte. ci xottu gerte ñoo ngi toog ci ren. ah lii xëy na lii wax yéeme na ci xottu gerte gi toj. yéeme na de sa xel laa la wax bu xottu ma nag pour wax pour wala dara waaye bëri na député yoo xamante ne jamono bi ñu toog nii ñoo ngi toog ci li nga xamante ne kat mooy nekk. maanaam seen perte bu xaatanul tuuti ah caabi na leen seen ginnaaw. ëpp naa def seen xaalis lu wér laa la wax. lu wér laa la wax loo tax ñooñu nag nañu gëstu xam nañ seen bopp. seen xaalis waxati na de seen bopp. dañu defaratuwaat seen bopp dañu wutiwaat ñaan seen bopp ku ko ci deful incha allahu rabi mooy loolu képp ku toog sa bopp seetaan sa yaram wala seetaan sa bopp. sëñ Xaadim loolu da ngay xoolal sa yaram la wax. waaw xam nga ñun dañuy gis sa yàlla la ñuy ñaan dañuy toog di bëgg di ñaan di gis di xam réew mi lu fi nekk jàmm di fi ne lu fi war a am lu fi war a def lépp dañ koy xam. waaw hmm. ñooñu dañuy def attention bu baax réew mi jamono biñ toll nii dama leen la li des ci weer bii nii di def ci kàttanu suñu borom weer wi jeex. waaye incha allahu rabi gëm naa ne moom jafe-jafe dina gën a am ci réew sëñ xaadim mbaa xam nga réew maa ngi wàcc sëñ xaadim ni ma gisee assemblée bi neexuma de assemblée bi tàq na tàng na de noo xamee noo xam si assemblée bi sëñ Fall ah assemblée bi la liñ ci yàlla war ak liñ ci gis ah bari na jëf de député yoo xamante ni jamono biñ toll nii ñoo ngi toog ci nen jamono biñ toll nii nga ne ma sëñ xaadim lu leer laa la wax bari na ñoo xamante ni fuñ toll nii ñoo ngi toog ci nen mbaa sama waaja bokk ci ah xaw de waaye bëri na su ñoo xamante ne ku ci wutiwul ñaan sa bopp ku ci làqatuwul wuti ñaan bu ñaan yu wóor ah di nga am jafe-jafe de ah, jafe-jafe na ñëw ci yow Karim bul wax loolu ndax parce que li ma gis li ma gis bépp député muy ministre bu bu fi ñeneen ak ñeneen ku ci wutiwul ñaan bu baax incha allahu rabi di nga am jafe-jafe sëñ Xaadim lii dañ la ko wan wala yow yaa toog ba gisal ko sa xaadim du ma toog rek di wax dépassé naa loolu lépp lu ñuy wax rek day fekk ne suñu borom moo ñu koy wax ñu doon loo xamante ne lu leer la mu doon loo xamante ne lu wér la ñu doon ko wax waaye képp koo xamante ne wutiwoo ay ñaan yu baax képp koo xamante ne aaroo sa bopp képp koo xamante ne defoo sa bopp moom di nga am jafe-jafe ci réew mi. man maa wax Xaadim amoon nga benn wax wax joo xamante ne waxoon nga ko jamono yële passé. Uh-huh. ñu toog ñun ñaar ñoo xam nga ne ma dijjee gas. Uh-huh. xoolee ma ne temps yi nañ am ñu rapatrié. Uh-huh. na ñibbisi si yàlla la woon loolu wala suñu xaadim ñëw da nga may loo xam da lay woon di rawane rek a woon waaw xam doy na waa trop c'est ni nga ma gisee doy na waa suñu xaadim xam nga ñun moom lépp loo xamante ne dañ koy wax dañ ñu koy wan mu leer ñu wax ko man de ragal naa dépassé nañoo wax si yenn yi wala dépassé ñoo def si yenn yi lépp lu ñuy wax rek dañ ñu koy wan ñu wax ko macha allah dañu làmbat làmbatuwuñu ku mel ni suñu xaadim jong naa di làmbatu ndax àdduna xam nañ ma réew mi xam nañ ma bitim réew xam nañu ma xam nañ ni sëñ xaadim ci lu wér lay wax kon lépp lu may wax rek lu wér la sa xam-xam bu wér ci laa toog kon lépp lu may wax rek dama fu ma ko teg bon man balaa may génn si as danga ma tiital nag si côté assemblée ba sama waaja dama koy xalaat ñëpp dëgg ku mu munti doon jàppal ni mën naa doon moom waaye du ma la diw la ndax du am na yoo xamante ne yoon mayu ma ko sam tamit sama mayu ma ko tax pour ma toog naa la diw la waaye bëri si ñoo xamante ne bu ñuy aarul seen bopp jafe-jafe bu nañ ko am ministre yi fi doon gis muy muy ñëpp. ku mu gis teg tey ñëpp ñëpp mu mënti doon la. wala nag ku ci nekk rek na nga làqut sa bopp defaru defaru li may wax dawaruma ko waaye ku ci nekk rek war ngaa mën a defarwaat bu baax. gars yi seen bopp. waaw réew mi balaa muy wàcc. seen xaadim ginnaaw bu ñu jógee foofu dañuy xool jigéen ñi nga xamante ne far loo xam si jigéen ñooñu. waaw loolu moom ku ci ñëw. te bëri na ci mim réew. dama la ku ci ñëw ñii ci man di ñaan ci loolu xam na kan mooy seen xaadim ci loolu ndax parce que rab yàgg naa leen di ko leen di leen ko tojal ci lu bëri man leen rab ci nu muy yàqale doomu aadama dafa bëri rawatina jigéen ñi soxna yi da gis soxna yi jekk macha allah mel nañu war a mel waaye lan moo leen di yàqal wàllu rab mooy tax mënuñoo am jëkkër moo xam da gis jigéen ñi di def su dul noonu koy war a mooy wàllu àndandoo moo koy def nga gis jigéen maanaam day jekk mel ni ko war a même bu sëyee du ko toog lan moo koy waral rab moo koy waral te dañoo gis taay sëy mu ngi tas rek waaw rab moo koy waral ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne lu ci bëri rab da koy yàqal ci nit ñi rawatina jigéen da ngay nekk ak sa soxna tam muy jigéen pour mu jox la sa bopp boppam problème la lan moo koy def. rab bi moo def loo nga gis nga am sa soxna tax tam mun naa jël di dem di génn di joxe boppam. lan moo koy def loolu say xaay waxate nga de. si rab moo koy def loolu bëri na. bëri na ci soxna yoo xamante dañu am jëkkër bu pare di def naka su noonu. di bazar seen bopp ci kaw ndax parce que lu leen mooy lan am na suñu bëri ñoo xam dañoo am ay àndandoo. àndandoo bu bon boobu moo leen def loolu. góor ñu ngay gis ak góor ñi des ngay gis góor di naan sàngara wala nga gis góor di jël alalu jàmbur des fois nga gis ñoo xamante ñu ci bëri di seen coobare dañuy ànd dañ naan dañ koo liggéey kenn liggéeyuñu ko man bëri na ci ñoo xamante ne jëflante naa am ak ñoom ba faj leen am na suñu bëri ñoo xamante ne dañ woon dañ leen liggéey waaye liggéey ñu leen de rab moo leen def loolu rab moo leen xirtal ngay naan sàngara wala ngay tuxlu bon wala ngay def ndax su dul am rab moo lay xitat si loolu doo toog doo liggéey fenn nag ba yàgg fa foo dem place boo dem boo fa liggéeyee ñaari fan ñetti fan bu weer jóge nga fa loolu fay jëlee doo ko xam rab moo tamit loolu ci mim réew waaw ñoo xamante ne toog nañu ay jeunes mënuñu am liggéey ba tax dañoo jàng ba daan ara seen xaalis mënuñoo am liggéey rab moo leen def loolu ñu naan ne dañ leen liggéey wala nangam nangam wala dugg na fii yàlla boo am sa noonu wala sa wuju yaay wala keneen ak keneen mu naan moo la liggéey fekk dara kenn liggéeyu la li nekk ci yow mooy àndandoo moo nekk ci noonu wala nga doon nit koo xamante ne nit ku siiw nga waaye mënoo am dara mënoo am dara sa mënoo toog benn place réussir fa mënoo toog mënoo réussir dara dara dara dara mën ngay toog ba am salaire un million par mois waaye dara doo xam fu mu lay bu dikkee xaalis na bu dikkee noonu lay tase wala nga doon koo xamante nga yor sa place doon góor yi tuñ sa place investir ci ay million dara lu ñëw day dem doo xam xaalis bi fu mu dugg loolu lu koy def mooy rab kon rab sa rab jamono bi nag ma xam ne la jamono bi ñu toll nii mhm. rab dafa bëri rab yi dañoo jinne yi dañoo bëri si jamono biñ toll nii. Eh, leer laa la wax. rab jamono biñ toll a bëri. Ah. sax ñu bëri na trop trop trop trop trop. am na si ñoo xamante ne xam nga ma xamal leen dañ naan dañuy ndëpp wala dañ naan dañuy tuur so en général lu ci bëri loolu day gën a xabtal jinne yi day gën a xabtal. dañuy gën a ñëw dañuy gën a ñëw. am lu koy dindi waaye du caagee da ngay wala da ngay xaw da ngay da ngay kii nu mu def da ngay ndëpp déedéet am na ci yoo xamante ne ndëpp am na de waaye na ko nit ñi daan defee est-ce que ba léegi nit ñi loolu koy defee say xay lu kaaraange parce que xamul tax sirru bi faa nga yor ko sirru rab pour dindi ko si nit faa nga yor ko yaay sirru rab man ku xam xam ni sëñ Xaadim dafa fees dell ci loolu ah ndax dafa dë mooy ma la wax rek man damaa dikk fekk ko ci biir kër gi ah samay maam di ko def di ko dimbi di ko def ma dikk doon loolu secret boobu jàppale jaamu yàlla yi di ko dindi nit ki da ngay amee ànd soxor bu nekk ci yow nga dikk ma ñaan yàlla def la lu may def songalan mën a demal nga dem mu dañ amul ngay dem di dikk amul nangam du ma la ndëppal du ma nekk di la nangam ak nangam amul waaye da ngay gis léegi ñun la indil nag sa est nañ ni sa rawaan bëgg na rab na nekk deret que xam nañ ni rawaan bi nekk ci yow nag la est-ce que xam nañ ni rawaan bi nekk ci yow bëy la est-ce que xam bi nekk ci yow ginaar la ñu jën loola ginaar rey mu gën laa topp yow yow sëñ Ba wala amaana bu ñu ko doon sa njaboot tuuti ba ci yàgg ñëw sa buy ñëwaat lu bon la ñëwee ak yow mën na laa ñëw tëral la dugg ci yow benn feebar boo xamante ne maara day taale lay doon. kon nit ñi nañu yeewaat nit ñi nañu yeewaat seen xamaat ni ñuy def ci ñu bu ñuy ñaanlu waaye bis ab sàmba nit bi ne war damay faj rab nga koy woo di ko jox sa xaal mu lay jox garab yoo xamante ne maîtriser wu ko xamul garab bi nu mu demee lool na ko nit ñi moytu bu baax a baax a baax. a ah mbokk yi ki nga xamante ne moom mooy sëñ borom taw féex xangi nonu seigne khadim xaadim fan ngay seigne khadim ma sha allah bala ngay tëj sax dañ jox numéro téléphone yi nga xamante ne lañ lay jotee seigne khadim yan numéro téléphone moy ñaari numéro yi moy yan depuis depuis depuis depuis depuis depuis kañ 98 ba légui numéro yi moy 1998 ba léegi mooy ñaari numéro yi mooy 78 482 63 63 wala nga def 77 497 405 numéro yi ku ma xam moom nga ma xamee ñaari numéro téléphone yi laa am mooy circuler si internet bi. ku ma soxla boo ma wooyee jotoo ma boo ma soxlaa jotoo ma lambul ba kanam ngay jot sa boo ma jotee man bëgg a xam ba xam dëgg-dëgg sëñ Xaadim la may naa la nga def appel vidéo WhatsApp nga may la nga xool sama kanam ba xam man la wala déet ndax parce que bëri na ñoo xamante ne dañuy mbubboo ne ñoom ñooy sëñ Xaadim di joxe numéro am déet. di jël samay vidéo gis nañu daay benn vidéo ñu tàgg waaw jël sa vidéo def seen numéro seen numéro ne ñoom ñooy seen xaadim ñoom ñooy seen nañ ko waaw loolu dafa bëri loo tax loolu jot na bàyyi xel bu baax a baax seen xaadim nag li muy tëje mooy ah fit ñaanal réew mi képp kuy doomu réew mi nekk ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew foo mënti nekk maa ngi lay ñaanal saay su nekk su ma xëyee saay bu nekk maa ngi lay ñaanal di la ñaanal réew mi am jàmm ndax réew mi amee jàmm ñu am jàmm kon nañu ñaan réew mi am jàmm nañu ñaan réew mi am jàmm. amiin yaa rabbi kon am jàmm di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp di ñëpp muy sama xarit yi may àndal muy samay waajur muy ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp ñu am jàmm képp ku nekk ci biir réew mi bitim réew rek sama taalibe yi nekk bitim réew yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal ngeen am jàmm bu baax a baax baax di leen ñaanal wér di leen ñaanal sutura sëñ Xaadim tijjil na puntam ñëpp képp ku ma soxla numéro téléphone yaa ngi nii képp loo xamante ni soxla nga ko ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi rek dinaa la jàppale bu baax ba nga gis sa bopp di ñaanal ñëpp ñu am jàmm di ñaanal ñëpp nga am jàmm di ñaanal ñëpp am jàmm. que ñëpp am jàmm. waaw mbokk yi neewoon naa leen man di Didier Gass Elias doomu Alla Fador tey nag maa ngi taxawal ki nga xamante ne moom mooy sëñ Xaadim sëriñ Xaadim mii réew mi xam nañ ko sëriñ Xaadim mii réew mi ràññee nañ ko ci personnalité am ci déyteem ci caractère am ci xam boppam ci sëñ Xaadim bokkoon sëriñ yi nga xamante ne njëkk nañ ñëw Dakar ci génération am ba pare rek di ko ci yoon moo tax man ti jégas moom ala waral gi soto ma di dégg maa tax ma ñeme jàkkaar ak moom di ko ne moom mooy interview ku ma xam dëgg du ma defal nag fërike sëriñ bu ma leen ko gaaw seen aaju faju sëñ Xaadim jërëjëf ñu si yow ñaan yàlla yàlla def jàmm defal ko ñëpp boobu